mbokki internet yu Dakar Net ginnaaw bu ñu leen nuyoo Ouzin ngeen di àndal ci les minutes de l'info benn mbir kase cote la ñuy waxtaanee di mbiri Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna tey dañu ko doon ate fële ci tribunal des flagrants délits bu ndakaaru activiste bi nag daal di nañu koy daan ñetti weeri kaso yoo xamante ni du ko tëdd ñu fàttali leen moom dañ ko doon toppee li nga xamante ni mooy fësal xibaar yi wérul ak maanaam jéem a gàkkal deru li nga xamante ni moom mooy gendarmerie nationale waaye nag Guy Marius Sagna ñetti weeri kaso la ñu ko daan yi nga xamante ni du ko tëdd ñu fàttali leen nag procès ba ko renvoyé woon waaye nag ci xibaar tey xam ngeen ni activistes yi dañuy am benn marche boo xamante ni dañu koy def fële ca place de l'Obélisque ñoom euh, toll nañ ci neuf li nga xamante ni moom mooy organisation yoo xamante ni dañuy yëngu ci wàllu activisme ñoom tey la ñuy joxe dig daje fële nga xamante ni moom mooy place de l'Obélisque Euh, dinañ fa dem lépp li nga xamante ni am nañ fa am na fa comme xibaar dinañ leen ko daal di dégtal waaye jàpp leen ni Guy Marius Sagna ñetti weeri kaso yoo xamante ni du ko tëdd moom lañ ko daan wi leen di abonné seen site d'information bii di Dakarnet dara du leen rëcc ci ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor ak Dakarnet du la rëcc ci réew